asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah vendredi 5 juillet 2019 ñu ñëw ci yëglekaay yi yëglekaay yi nag tey sunu làmb la ñuy xëy doore ko yëglekaay ba nag tey bi mu xëyee daal dafa ñëw ci diggante Ama Baldé ak Balla Gaye numéro 2 ndax nag yeneen ñaar ñii di ku ci nekk boo bëggee dégg-dégg daal ku ne am na foo féete ci combat bi war a ci diggante Lac de Guiers 2 ak Boy Niang yëglekaay bi nee na bu dee Balla Gaye 2 mu ngi la. ama ca côté boy na moo tax la yëglikaay bi diggante ñaar ñii seen xaritoo bi wala seen àndandoo bi ah mbaa combat bi di ci dugg boobu xaw koo yëgal sunu làmb xëy tey ñëw samp boobu laaj di ko laaj mu mel ni ki daal ku la yaa ngi taxaw di ko sol ak a ñaax waaye jamono jooju nag moom kat yi booy ñaan na tam moom fi mu nekk nii day kaful ndax nag nga xam nii day moo ak la ko jege ak ruq-ruqaan yooyu daal ñu ngay segg ut ay gardien lépp loo xam ne daal wàllum sécurité la jël nañ ko teg ko fa ba mu doy sëg ndax li ñuy bañ mooy koo xam ne nii daal jëf nga leen jëfi ndew rudu maanaam jaar ci suuf def leen dara te duñu ko yëg maanaam daal ku leen rax la ñuy bañ moo tax fi mu nekk daal lu mu mënti doon ñu ngi koy xool ak a xoolaat di ko saytu kuy dugg kuy génn ku ci bokk ku ci bokkul sunu lamb xëy tey wax nu ko waaye ba tey yëg likaay ba génnul Pikine ndax nag Pikine la des ñëw ci Eumeu Sène mooy magi Boy Niang ak Ama yëg moom day combat bi mu jëm li ko ciy xaar itam metti na ndax nag raxas li nga xam ne ni day daloon na ko te mënuloo tegal ko ko maanaam jiw li bu rëy ba nga xam ne ko ko yëg kay ne loolu war na koo dindi ak leneen loo xam tamit day mu ngi ko cay xaar mooy titre roi des arènes bi nga xam ne ni day moom la yor mu jéem koo téye sàmm ko yëg bi moo xëy tey ñëw. di wax loolu waaye lan loo xam ne yëglikaay bi caa ñëw muy ay mbër yoo xam ne day toll nañ ci fukki mbër wala sax lu këpp yoo xam ne ren moom boo bëggee dégg dëgg ane nañu balance maanaam daal seenu at moom gisuñu avance ak i mbër wala lu tax ngeen wàcc dinañu bëri ci ab géew jàppal yëglikaay bi ne Gris doo mu nga ca biir tafaati na nga ca Bombardier nga ca ak kii nga xam ne moo di Sa Thiès Sitta Yékini Junior Modou Anta a Guy a ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne daal yëglikaay bi jàpp na ren de ci mbedd mi la ne maanaam daal moom bu bëggee dégg ren moom teguñu ko ay bët maanaam wàllu bëre moom ren moom dañu koy dégg yëglikaay bi ñëw di ñu wax loolu leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi da caa ñëw muy loo xam ne nii de lu nar a am na ci weekend bii ñu jëm ci ay combat mu mel ni ki nag lay jaay moom moo woote fa nga xam ne mooy ca arène nationale diggante Aliou Mané ak ki nga xam ne moo di Soundiata waaye jamono jooju nag jël na beneen combat doole ko ca ginnaaw dafa gëy dee ba nga xam ne ci lay bëri moom tamit moom Abou Niass mu doole ca beneen combat espoir boo xam ne day bu nar a neex lay doon dox ci diggante Allemagne ak 12 ans yëg li nga xam ne combat bu tam taxaw na ñu war ko bëri tamit ci samedi ji fi nga xam ne mooy ca arène nationale mel ni ki tamit samedi jooju ki nga xam ne moo di Sambay moom itam mu nga jëm fa nga xam ne mooy stade Iba Mar Diop ci diggante kii nga xam ne moo di Coly Faye numéro 2 ak Ndandi Fall kii di Coly Faye nag dem moom wax na ak Ndandi Fall nee na ko duma sa morom ca Leewtoo TV fa la waxe waaye bu wul ma tëral fëgal tëb dimanche jëla set ñooy bëri arène nationale Assane Ndiaye fa jaar ñooñu tam boo demee ca Leewtoo TV ñu ngi fay waxante lu méttee métti dugul ma tëral na ko yow day lan nga waxoon samay supporter jàppal ne moom laa la dencal te buñ ca yeggee dinaa la ko wan kii nga xam ne moo di fëgal ne ko yow moom ndax li ma xam ba xam ko daal mooy ñëw naa pour Rebeuss ñu wax ma say wax ma dal ci seen kaw ñibbi te bu sam bu dimanche bu ma la jàppee dama lay wan ne la man du ma sa morom waruma sax bëri ak yow bu ma la daanee du ma sigli te dama kii nga xam ne nii moo ni fëgal ba tey bu mu continuer dam fa nga moo ne record record dafa ñëw ci réew mi mu ñëwoon démb wala boobu tafaati moom mu daan loon démb muy wax ci kii nga xam ne moo di année balance ak bopp ak ñi mu war a bëri bañ ko tuddee Reug Reug nag tafaatil jàpp ne dàqul bëri ak moom ndax mbër la comme mbër yëpp bu ko làmbal laajee waaye tey nag am lu ma defoon laaj ba wala ma defoon reportage ba xëy na sampate am laaj laaj ay borom xam-xam mu maanaam daal ñu nekk ci làmb ay technicien ka ca jëkk moo di ngañ jaay ngañ moom la mu jàpp moom nee na tafaati nag kii rëgg du priorité moom nee na loolu moom du loo xam ne lu ñor la nee na tafaati tey la ko war mooy mu lijjanti digganteem ak Ama Baldé wala boog ñeneen ak ñeneen waaye kii nga xam ne mooy rëgg moom ngañ nee na loolu du priorité père Max Mbargane moom la mu xam ne daal mooy nee na combat la mu neex de waaye day fekk tafaati nangu ko rek waaye bu ko nangul moom du mën a sotti max moom loolu moo di gis-gisam amul ko ci tam na la mu jàpp moom entraîneur équipe Dakar ba daal nee na li leer ba leer de làmb ju war a mën a neex la te war na mën a nekk nee na ñoom mbër yooyu dañoo war di may xale yi saas ñuy jaxasoo ñoom di bëri sawu faa tam di menacé wax na ca nee na loolu moom leer na réew fi mu nekk nii mbër mënu koo bañ ci làmb ji ndax nag mu ngi wane boppam waaye amul benn promoteur boo xam ne daal ñëw nga ne da ngay tëgg boobu combat waaye daal jàpp ne moom li am ko des daal mooy Reug Reug koo bañ ndax mu ngi wane boppam yëglikaay bi di la ko moo xëy tey ñëw wax ñu ko waaye li seetlu na drapeau chef de l'État moom ba tey na ndax nag ki nga xam ni nii de ab xale la bokkal ci drapeau chef de l'État ñu koy wax Dibocor Sagne yëglikaay bi nee na de li leer ba leer moom parcours sans faute la def maanaam daal yoon moom mu jaar moom kenn baarewu ko wala ku ko bëgg a baare dindi na la sànni la fële maanaam bëri na ba mu jeex te drapeau chef de l'État ba woon ca Mbuur te kenn daanu ko wala ngay jaar ci kawam waaye leneen loo xam ne tamit amoon na fa muy wàllu arbitrage ba moom mu mel ni ki nag ba moom dafa mel ni daal bilan a baax a baax a baax bi yoon moom seenu bilan moom lenn la si mën a joxoñ wala ñu leen cay wax ay wax yu jaarul yoon moom amu fa yëglikaay bi su làmb moo xëy wax mu loolu waaye li leer ma leer tey la àjjuma jàpp leen dañuy balu ñëpp ah di baal ñëpp ah di ñaanal ñëpp jàmm waaye nag mu leen fàtte de la 27 drapeau ki nga xam ne nii moo ni Abdourahmane Diaw diggante Fara ak ki nga xam ne moo di ngeer Abdourahmane Diaw la mooy suñu directeur adjoint ñun waa Leewtoo di suñu papa di suñu nijaay kon dee leen ko fàttale ko gars yi bàyyi leen ko arène nationale lay amee bàyyi leen ko xel am na jaar Fallou Ndiaye ca la góor seen dër yi bëri combat yi ca xew bëri na waaye bu gaaw tiir Talla Ndiaye defati na la mu daan def la mu defati tey doyati waar la rim kaa ñëw kenn du rim kaa borom Touba Sall Talla Ndiaye rim kaa dina la ñawal de loolu day am maa la ko wax

si Leewtoo TV ak Leewtoo point net nu commencé si sunu lam sunu lam mi ngi wax naan est-ce que diggante euh, Ama Balde ak Balla Gaye du am ay lënt-lënt bu siy dox parce que Ama Balde mi ngi ànd ak Boy Niang Balla Gaye mi ngi ànd ak Lac de waaw man de yaakaar naa warul mën a am problème ah, parce que li tax mooy que ni sport la ñuy def ah bu fekkente ne ñoom ñaar teg nañ ko ci cadre sport defe naa problème mënu fa am ndax yaakaar naa Balla Gaye de tey fi mu toll si lamb ak fi mu toll si wàllu maturité maanaam yeewute war na dépassé euh, war a mën a am problème ak Ama Baldé ci ko ci loo xam ne lamb la joo xam ne ku ne daa am koo àndal di ko défendre lii loolu mooy Ama ku ne xam na ne Boy Niang Pikine la dëkk mbir mi nekkoon seen ayu kilifa ba ci seen ay mag ba ñoom tey ñu nekk ay xale di défendre couleur Pikine Boy ñang bu jëmee ci bés c'est très normal Ama Baldé soutenir ko defe naa loolu tamit nit sax da ko war a rafetlu kon defe naa problème waru ci mën a am loolu tamit moo xew Guédiawaye Lac ak Balla tamit di ay nit yoo xam ne ñoo bokk lépp bokk géejawaay di ay ténor nekk fa Lac tamit jëm ci bés Balla da ko war a soutenir mais tamit loolu du warul mën a génn cadre sport te yaakaar naa du fa génn ndax Balla war na dépassé na loolu pour man ama itam pour man dépassé na loolu ba pare ñoom itam leneen boole leen diggante ama ak Balla muy mbirum mbokk te defe naa mbirum mbokk a a fort mbokk ak dëkkandoo dafa nekk ñaar yu fort a fort a fort kon defe naa seen mbokk googu moom lamb du leen ko war a mën a yàqal ci li ma gis rawatina nag ñi leen encadré jàppale leen ci parce que loolu moo leen ci génne mais yaakaaru ma ne problème a am du tere nag ku nekk soutenir sa mbër jàppale ko ngir le sursis mu am ndam parce que loolu mooy tax euh, lamb ja mën a neex te euh, bés boobu tamit defe naa loolu day bokk ci li nit ñuy xaar tey Balla Gaye 2 bu ànd ak Lac indi ko Boy Niang bu ànd ak Ama Baldé indi ko waaw keneen ki nga xam ni keneen ki nga xam ni mi waajal boppam bu baax moom mooy euh, Eumeu bi nga xam ni moo war a bëre combat royal ak euh, ki nga xam ni mooy Modou Lo nee nañu daal Eumeu Sène daal am na ñaar défi yu koy xaar benn bi mooy fayu dóor bi nga xam ni Modou def na ko beneen bi mooy denc couronne bi nga xam ni moom moo ko jël si si si Bombardier euh, euh, le 31 juillet bi passé bu daaw bi. waaw le le le la ko jëloon waaw waaw le 28 la ko jëloon daaw si Bombardier moom seen waaw loolu tam moom tey loolu moom lu ñu war a taxaw seetloo parce que boo bëggee dëgg-dëgg combat Eumeu Sène ak Modou Lo bi si nekk si côté Eumeu Sène mooy revanche bi mu war a jël si si Modou Lo ndax daka daanoon ak leneen li ci des mooy couronne roi des arènes bi nga xam moom la yore te bëgg ko téye ci dóor ak bëri premier combat am ginnaaw bi mu ko jëlee si Bombardier loolu ay enjeu mais moom li ko gën a intéressé ci li ma dégg kër ci ay waxam au niveau du TFM mooy que ramas bi effectivement lamb ji ramas bi moo ci ëpp kii waaw parce que li tax mooy même bu yoroon tey couronne roi des arènes day bëgg a fayu daan bi ko Modou Lo daan kon defe naa loolu moo njëkk a nekk enjeu wu bi di wax nag nag combat la boo xam ne nii bu nar a metti lay doon ndax li ci laxasoo moo bëri Eumeu li mu yor ak daan biñ ko da ko bëgg a fayu Modou Lo jóge ci daanu moo ñëwoon loolu nag moo tax combat boobu du nekk combat boo xam ne ni daal bu ñuy mayante dara la quoi combat bu nar a mettee metti lay doon Babacar suñu jógee suñu laam ñu dem si journal record record mi ngi ñuy xamal ne Reug nee na d'accord na nangu na euh, bëree ak tafaatin Tine parce que démb tafaatin Tine ne woon na pare na pour bëree ak ak Reug Reug pourquoi pas du bëri ak Reug Reug

tuuti pour tafaatin parce que jàpp na ne tafa war na tal leneen lu dul rëg-rëg moom daa jàpp ne Ama Baldé mu ngi fi war na lijjanti ramasse boobu euh, Balla Gaye ngi fi jànq diggante mag girée ngi fi ramasse mag bomba war na ko lijjanti ngañ moom loolu la gisee loolu nag comme ni ma koy waxee rek gis-gisam la xalaatam la et puis tamit lamb noonu la ay ramasse nag dañ ko war di bëri ci làmb mooy tax làmb neex kon dafa am na lu koy xaar foofu ki nga xam ne mooy Sëwru Fall jàpp na ne rëg-rëg mënee su koo bañ waaye kenn doxagul ñëw ci ñoom wax leen combat bu mel noonu pour tafatin waaye nag jàpp na ne rëg-rëg mënee su koo bañ kati jo moom daa jàpp ne a bëre ak rëg-rëg tafatin dañu war a bëre maanaam ku la waaye ndax tafaatin dina ko nangu ci bu ko nangoo waaw wax na dëgg parce que tamit actuellement tafatin li ma waxoon ci Ama Baldé rek tafatin am na yeneen prix yeneen bunt yu mën a jaar su ko neexee mooy Bombardier bi ma la tudd léegi Balla Gaye Ama Baldé ak Gris Bordeaux loolu lépp ay porte la pour moom pour ñu mën a bëreel terewul nag digganteem ak Reug Reug war nañoo mën a bëri ci kaw mu nangu ko mais lay noyal combat bi wala lay combat tax combat bi gaaw a am ci tafaatin lay dépendre Reug nag moom fi mu nekk nii rek li ma lay wax lay doon moom moom ko ne yàgg tafaatin a ngi nii moom da koy jël du ci teg baat ndax dafa am lu mu gën a wan doomu aadama yi moom loolu la jàpp parce que daa jàpp ne fekk daanu ci ñooñu rek waneegul boppam moo tax nga xam ne daal làmba ngi noonu daal Babacar nu jàll dem si Leewtoo TV démb ni nga woon si open press Fëgala euh, Fëgala bi nga xam ne moo war a bëre dimanche ak double moteur si drapeau Aïda Mbodj moom tamit wax na xas na daal kii nga xam ne moom mooy adversaire am muy double moteur. waaw maanaam xas maanaam boo déggee baatam xas nag mooy ku jëm ci bis di di kañ boppam di maanaam di wane ne comme man man mii day. waaw di di di di di di kañu daal waaw loolu nag mooy open press yi ñuy def say mbokk génn say waykat génn way la waa koñ bi génn dar la nga wane ne leen daral leen seen xel fëgale lool la def dem Double Moteur def ko bërki ñoo xam ne ni mën naa ne ci côté lamb bu ñëwee si bëre màgg ak xale la parce que regret kële kële boog mooy njëkk a bëre ki nga xam ne mooy Double Moteur Double Moteur nekk xale liggéey ba ñëw yegg si ci ñoom tey fëgale may ko sens fëgale tamit loolu mu def dañ ko wala rafetlu ndax su ko neexoon mën naa am du bëre ak Double Moteur gis na ne xale la mu ngi wane boppam lu bëri gëm na nag wala jàpp na ne moom may na ko sens mais booy bi du ci génnaa moom loolu la wax démb nee na lu mënta xew dama koy daan la wax ma ko daanee du ma sibilé kon jàpp na ne may na ko sens mais bokkuñu ñoom ñaar ci làmb Double Moteur tam na ne fëgal loolu muy wax day nax boppam ndax daa jàpp ne moom la fay neex moo koy def mooy indi supporters yi mooy fecc mooy bëre mooy la wax muy làmb joo xam ne tamit Dimas ak Assane Ndiaye drapeau suñu yaay ay dem bu làmb ju nar a neex la ci arène nationale suñ jógee si Leewtoo TV nu dem si Leewtoo point net ñu ngi xamal ni que euh, lutte simple dina ñëwaat fi nga xam ne mooy dakaar ndax weekend bi passé amu woon ndax drapeau chef de l'état bu amoon Mbour weekend bi nag dimanche bi euh, Jilas production moo woote teg fa mise un million si Adrien Senghor. waa Jilas production bu ñu waxee suñu xel day dem ci Doudou ñaana ñu koy nuyu bu baax a baax a baax mu Doudou ñaan di ko wax ne ko xam nga loolu tamit lu am am solo la parce que lamb moom lamb moom dañ ko war di gën a yokk di ko may doole ndax tamit day génne ay champion bu baax a baax yàgg na ko sax sax def comme drapeau résultat bi mu amoon weekend passé ba tax ñu ajoon làmb jëpp kon defe naa ne suba daal wala dimanche boog laa bëgg a wax képp kuy amateur lutte simple lutte simple baa ngi lay xaar Adrien Senghor ku bëgg lutte avec frappe arène nationale am na stade jox dig daje leen di incha balaa boobu may nuyu sama yaay mère sama doom euh, Mohamed Diouf da Tadi Gueye maa ngi lay nuyu di nuyu aussi waa groupement a Camara Job euh, yaa ngi si biir ñëpp waaw noonu lay demee ah di nuyu maire Sow comme noonu nga wax sunu yaay di nuyu sa doom Mohamed di nuyu ñëpp ñuy suivre ci Leewtoo TV ak fu ñu mën a nekk rek mais tamit du ma fàtte ñi nekk noonu fii ci kër gi ku mel ni suñu papa suñu tonton Abdourahmane jaw bu ADN directeur adjoint wu Leewtoo borom drapeau bi parce que bul fàtte ne ngeer ak franc pour le 27 moom la ñu tudde boobu drapeau yaa ngi dégg ka ko def nag mooy Kandji ak Fallou Ndiaye muy la rafet Diaw futur maire sa Sassalema noonu la demee ñuy nuyu ñëpp di ko nuyu di nuyu Thiès di nuyu waa miir yi tamit ñoom Matu ñoom Dior Eliane ak Nicole fàttewuñu kenn di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre Aïda mention spéciale borom ndox mi laa ko tuddee ak borom madd beeg ton bi Ayda Diouf maa ngi lay bëggee séréer bu xees di nuyu ñoom tuuti yaay Sarr ñoom Khadiros Ndiaye Fatma Fall ñoom Baye Zal ta ca Paris Ndongo Fall fàttewuñu kenn Benzema Ousmane Ndiaye sëñ Mbaye euh, nu ñu koy waxee maam Modou Gueye taal bi sëñ Mbaye si Abdou képp kuy suivre Leewtoo TV rek ak foo mën ne ñu ngi lay nuyu dina ñaanal suñu équipe nationale bi ngoon yàlla na leen yàlla may ndam lu seddu guy ci kaw Ouganda ba ñu qualifié quart de finale Aliou Cissé ak ñi mu boot ñëpp bay sax ñu dem ba final jëli coupe bi indi ko fii Sénégal loolu la ñuy ñaan di nag sama booy ba Saliou Ciss di ko wax ne ngoon yàlla na nga amaat ñaari penalty ci surface Ouganda yi te kii nga xam ne ni mooy Sadio Mané wala Balde Keita Diaw dugal ko la sax Henri Saivet parce nag olof a ko wax sama bopp mu la gënal du bañ naal te ñun ay sénégalais la maa ngi nuyu aussi Astandine ak euh, depuis Italie ak. Euh, Khadija Diallo mi nga xam ne mooy jabar depuis passé à seen une de 26 di nuyu aussi Talla chéri Lébu. Lébu daa dem temps yi Talla xëy xametu sa daal yi muy sol Lébu gaawal ñibbi si daal di fermé lay jël def ko def ay carax te yooyu wóorul ñëwal ñibbi si jage yére yi froissé na trop Lébu. bul yàgg jërë ngeen jëf ba di incha allah.